naa ngir màggalam gi doon safar di defar mbooloo loo jëf ñu dal koy ful lu gi doon di defar mbooloo mi loo jëf ngi màggal gi nag moo ko daa def lim ci digle da ñu jaamu yàlla ci sunna sundigal sëriñ bi nag moom ci boppam daana toggi ñamam tàngal kafeem di bégal mbooloo mi yoon waa ngi sëriñ bi dëli na ne koo gis mu man ci bisam bii bis ba ñuy jaaxle dañ koy ñee te xem gaa ngi ne ñaari nit bu ñu dendee kii di fonk bisam bii dana raw sëñ Bamba woote na tuuba fa tuuba fa tuuba lana rijaayi xadim Bamba julli na ci géej bato bay daw tubaab ya naan mbàkke yaaram li ma dégg nit ñi wax di ko lëmti lëmte rajo yi di ko wax terrain gi ma dégg di ko klaxonné waaye mbégte ma jot na sëñ woote na toogaay amatut barke sëñ Tuuba bisam bisaa bu dikkee mooy raw lu wér la ay la yéwén dem jot foo ñu jëm touba liman bala sëñ bamba wote magaluk sëñ touba gi waaye sang gitu, bi heur bi da woko dem bu desaan ñaari fan ngay dem touba Dege no bu daan des ñaari fan ak ñett lay dem waye ren magaluk sëñ touba gi dama ci bëgg saf saf bëgguma kenn ëpp ma ci yool ba ma jiitu ma ci tay ren gi fukki fan ak juroom ñett safar gi la bëgg mu fekk ma fa te magal gi jàllee danaa fa tok ñaar fukki fan ak juroom ñett magal gi dama ci bëgg saf sap ndax besu sëñ touba no ca toll no ca duggé rek noonu nga ca toll te dama ci bëgg tak rip waye sang xoolal tool yi ñax yi ni ñu bëree ak jur gi kan moo ñu koy xolal jur gi tool yi deug la waye xalé yi saytu leen man señ bamba ma gënal li tool moma gënal li jur moma gënal sànq njabot yow mi sax señ tuba ma la gënal waaw léegi daal kilif ndigal wéye li ma bëggoon xam mooy ñaata nga ngànnaayu fu lo denc fu ah sang bi de man kérok de ci marché Ibra Yaasin bi hmm. jaayona sa yaari ginaar ya lo len jaay benn bu nekk ñet ñet ak juroom fuk kenn bu ne ñett juroom fuk boko ko du juroom ñaar juroom ñaar téeméer lima yor kii buñ ko ci dolli mëna dem ñun suñ dëkk soor ginaaw ngaabu gi buñ ko défé daal dugg dank fekk magal ga am ca yool ya jógal ñu waaji ñu waji nañu waaji barke borom tuba ko ngir màggalam gi doon safar di dafar mbooloo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi ngi yéem ko ngir magalam gi doon safar di dafar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful laabi màggal gi nag moo ko daa def liñ ci jaamu yàlla ci sunna sundi jël laa ngi sëriñ bi nag moom ci boppam daana toggi ñamam tàngal kafeem di bégal mbooloo mi yoon waa ngi alhamdulilah ma ndom ak morfun gi xawma deru kaña nuñ koy ndom ba man xawma rapport la xawma xana nga ak beleen lay concurrence moom ndax deru kaña moom wax deug yalla ma nga fàtte xanaa dana ma du moom gone yi deru kaña kuy tàggoo allo allo waaw <laughs> Baye Mbarik ah Baye Mbarik waay na def ana ana soxna si ana soxna si ndaka liggéey bég yëf yi bu waxtu ah? magalam gi di ñëw danan ko yàkkaw li koo koy séentu gaa ngi nii bi siit ah, maa ngi déglu sa waxtaan nag dëgg la dëgg la waaye bu ci daw ay fere waaw ndax lépp lu ñu am mhm. sëñ Tuubaa nu koy may dëgg la kon nag buñ ci daw buñ ci ragal fere mhm. lépp lu ñu amee nañ ko ci defaat dëgg xeeb waaw ganaar waaw ma du ma ko ci def waaye bu ci kenn naw gëleem ba du ko ci def hmm? kon nag loolu mooy bis bi. kon lépp lu am. waaw ko ci def te bis bi. waaw mën naa ni aj màkka la ci borom yéene. ak lu ko raw. ndax moo tax mu ni wax a jëban li man bi dox fi irtada. Mhm. wa hujjatan li man ala xaaliqa. laa ilaaha illallaah. sëñ Moussa Ka wax ko ca way ba. wallaay daal ni képp koo xam ne màggal nga bisub tukkeem ba. Mhm. aj nga umra nga jihaat nga am nga yool ba. waaw lii la sëñ Moussa Ka doole ci waxi sëñ Tuubaa ja. dëgg la de kon nag. bul ci ragal ay fere mhm. na nga yaatal xol yi mhm. yaatal kër yi mhm. teral gan ñi incha allah berndeel leen waaye nag bu ñu yam foofu nañ leen berndeel berndeel ruu yi yi jàng alxuraan ak tuub dellu ci suñu borom astaghfirullah kontaan naa lool ci yow li nga ma xamal kat moom bu la neexoon lànk ni ko xamal waye ko gore nga big na ciow kon dina wo Baye Mbari mu waaj léegi ñëw mok mok soxna ci inshallah nu wax ci bu ko defé lu nan mu bok day bax rek ku bax nga jërëjëf li nga ma laabiri ci señ bi kër xaw ma ak ah, ko ngir magalam gi doon sawar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi ngi yéem ko ngir magalam gi